salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas eh, man mi nga xam ne maa liggéey garab gi ngeen di dégg te ma tuddee ko la roquette waaw ah, la roquette xam na am na sax ñuy laaj tur wi tur wi lu mu wund la roquette xam naa ñi mës a dem armée xam nañ roquette waaye ñi xam tuuti ci wàllu mbiru soldat xam nañ luy la roquette roquette gànnaay la bu soldat gi soldat si di xeexee nga xam ne mën nañ toll fii sànni ko mu dem fu sori def la may def waaw gànnaay gu am doole la loolu mooy loolu mooy roquette gànnaay googu nag laa tuddee sama garab gi te ma de te ñi ko jël xam nañ ne juumuma waaw La Roquette li ko yëkkati mooy faj wàllu néew kàttan am na góor ñu yëg néew kàttan ci wàllu sëy te mu yàgg ci ñoom lool ba jaaxal leen nañ dellu ci garab gi ñi nga xam ne yàggul ci ñoom daf leen doog a dalit waaw ñoom it nañ dem ci garab gi kon nag ñëpp a ci yem kum yàgg ci yow laa Roquette kum doog a dal La Roquette ñoom ñëpp mën nañoo jëfandikoo la roquette ndax daf leen di fajal seeni gàllankoor ci wàllu sëy ndax du lu ñuy sooxaale ndax kër yu bari yëngu nañ fekk lii moo ko yëngal waaw boroom kër ga rek xëy mënatul dara waaw kër yu bari loolu moo leen yëngal suñ defaree garab nag tuddee ko la roquette muy faj wàllu néew kàttan mu wóoruñu ne am na ñi nga xam ne dañ koy dund te am nañ kersa sax waxtaanee ko ñu joxe sunu sunu numéro wala numéro yi nga xam ne ñoo ñu teewal ci yenn diwaan yi mën nga cee woo kenn rek ci sutura fexe ci am rek waaw ci rek ci sutura rek waaw su ko defee nga faju ndax jàngoro moom dañ koy faj yow fajul rek fajul rek ay dama découragé fu nekk dem naa fa ak yëpp jaru ko fajul rek. waaw ndax xëy na foo dem nag eh, di nga am loo fa dépensé xa dana métti waaw waaye nag taal wu taw a tàkk moom wet gu ne lañ koy ëppee waaw yàlla dogal nag la roquette kon néew kattan lay faj ci wàllu sëy ak yi nga xam ne ay màndarga la ci xeetu néew kattan lu mel nii gis nga nit ki nga xam ne deretam du daw normal ci yaram ci yaramam am na ñi nga xam ne seen deret dawul normal gis nga am na ñi nga xam ne seen problème loolu la deret ji moo dawul normal seen yaram moo tax seen awra mënul jug bañ mën a soy ndax bërëb boobu foog deret ji dem fa dem fa ak doole pour mu mun a jug loolu noonu muy taxawee loolu ñuy tuddee érection yéen ñi jàng tubaab li koy waral mooy yëg-yëg bi ci sa jur gi lay jóge yegg foofu yuur yuur yuur yuur ga fa lay fa lay daal fa lay tàmbalee waaw fa la yëg-yëg bi di tàmbalee boo ko defee si sidit mel ni lu tijjee ko deret ji daw normal yegg ci bërëb boobu bërëb mbir ma taxaw nga mën koo jëriñoo kon nag góor ñi nga xam ne seen mbir du taxaw dañu am li ñu tuddee trouble de l'érection waaw mbir mi bu taxaw doo mën a sëy kon nag la roquette da koy faj loolu lenn la ci li ci topp mooy ñi amee ballonnement xeetu biir yooyu biir bu rëy li ci ëpp graisse bu bari moo ca moo fay nekk biir bi mel ni lu sol ngelaw soo seetloo góor ñi dund loolu seen awra day mujj mel ni lu dellu laa roquette nag dafay faj loolu waaw kon gis nga loolu bokk na ci njëriñam ak coono xam nga ku sonn daanaka sa xel du nekk ci sëy ñu ëpp ci nit ñi bés bañ naanee laa roquette guddi gañ ko naanee bañ yeewu dañ la naan man di coono gu ma yëgoon yëpp dañ na ba démb am na ku ma ko wax ni ma daan sonne man ba ma yeewu li ma seetlu mooy coono ko wàcc na kon nag dafay wàccee coono day tax sa deret di daw baax na ci li ñuy tuddee ballonnement baax na ci coono yaram waaye baax na ci seere ndax it boo seeree da ngay tayal boo tayalee sa xel du nekk ci soxna si kon nag gis nga moom yooyu yëpp da koy traité leneen li ci topp moom ci garab gi lañ mën a waxaat ci garab gi mu muy laa roquette bii nga xam ne moom lay waxtaanee mooy moom gàncax kese laa ko liggéeyee te gàncaxu réew mi laa ko liggéeyee dañuy wax ne réew mu ne gàncax ga fay sax moo leen di faj moo tax yenn saa yi soxla woo sa jéggaani dara lay lay lay lay lay sax ci réew mi rek mooy mooy mooy mooy faj waa réew mi kon na nga dégg ci ne moom laa roquette lu naturel la waaye yemul ci naturel bio la bio xam nga bio naturel baax na waaye bio moo gënati te produit pour mu nekk bio dafa xam yoon wu muy jaar am ñi xam dañoo jàpp ne lépp lu naturel bio la déedéet bio ci ci liggéey bi la ci defarin bi la defarin bi dafa war a la ba ci fa nga koy def emballage bi mooy paquet bi nga koy def paquet bi warul warul doon yenn xeetu paquet yi waaw gis nga laarokat bu baaxoon lool ma def ko ci paketu paquetu xeetu mbuus yooyu mbuus yi dañuy yàq doole garab gi garab gi du nekkati bio kon nag njëriñ bi dafay wàññeeku ba boo xoolee kon emballage bi nga xam ne moom laay defal garab gi matière bi papier la papier bi nga xam ne mën nga cee denc garab gi juróomi at te du yàqu waaye du yàq dara ci njëriñal garab gi kon sax yow mi koy jëfandikoo boo ko fekkee boo ko jëndee rek bàyyi ko ci sa embalage bi bu ko sotti feneen ndax embalage bi daf ci am njëriñ kon nag loolu la wax ci. la roquette su dee ci wàllu jëfandiku da ngay def guddi gune nga jël ci kuddu café gu mëkk mëkk mooy rasé def ko ci kaasu ndox mu tàng kaas gu mag xam nga kaas gu mag nag kaasu ndékkeekaay am na yu mag a mag yooyu da def digg rek digg kaas ndox mu tàng kudd gu mëkk nga sotti ci biir yëngal su nuggee nga segg naan wala nga xaar mu tey nga naan ñaari baax na su dee kaas gu mag a mag su dee kaas gu digg doomu mën nga def ba muy waaj a fees nga defee ko noonu moom tamit kon noonu la ñuy jëfandikoo la roquette li ci gën mooy guddi gune rek soo reeree nga jël ko naam nag mën nañ sax jël mën nañ ko jël ñaari yoon du yàq dara soo xëyee ba ndékki nga jël guddi soo reeree waaye lu néew néew guddi gune jëlal sa la roquette kon nag noonu lañ koy jëfandikoo ñi ko soxla nag te dëkkee fii ci dakaar mën nañ ma woo direct directement ci 77 786 65 19 su dee ñi dëkkee Kaolack ak li wër Kaolack yépp soxla ci garab gi oustaz Alioune fay ngeen di woo moom moo ñu fa nekkal te ku ko war ak incha allah moom ku am yitte la dana fexe ba nga am ci garab gi numéro 77 121 79 46 77 121 79 46 su dee ñi dëkkee Mbour imam Diène moo ñu fa nekkal moom it boo ko wooyee da nga ciy am.

ñi soxla ci garab gi nga xam ne mooy la roquette te dëkkee Thiès mën nañoo woo sëñ Pathé Gueye numéro am 70 564 66 51 su dee waa Ndar Géej waa Saint-Louis Baye Diop la ñuy woo 77 965 45 84 ñu dëkkee Kaarang ba Gàmbi Baye sa Ndiaye moo ñu fa teewal numéro am 77 611 55 85 kon nag numéro yooyu ku ci woote di nga am ci garab gi incha allah te damay faral di wax ne ñàkk ko am wóorul la ñàkk ko am wóorul kon kenn ku ne ci am képp kuy dund wàllu néew kàttan te yàlla xam na bëri na ci jamono ci képp kuy dund wàllu néew kàttan Hmm? laa roge tàngoog de waaw imaam jën mi ma koy wax barki démb waaw nee na ah am na mbokk moom moo ma ko jox de daf maa woo ëllëg sa ne ba a tey de ba ma yeewoo ndékki liñ ma defaral gëj gëj nañ maa ko def nañ ma ko defaral ma ne ko laa roket moo fa jaar waaw moom di gone naan day fay day fay de waaw kon nag yal nañu yàlla may dégg ak topp salaamaaleykum wa rahmatullah